donc lii luy tax Sénégal gën jege ci Coupe d'Afrique si lay bokk après incha allah bu ñu demee Coupe d'Afrique 2021 war ko gagné sunu dëkk dañu war organiser war ko gagné sunu biir dëkk nga xam ne dañ koy fete woon mais je may wax encore une fois de plus nous sommes booloo bekk nday bokk parce que c'est l'île qui l'époque, sport le le facteur de développement et d'éducation pour l'Afrique et le Sénégal pourquoi pas organiser bientôt la coupe du monde des moins de 17 ans des moins de 15 ans il y a beaucoup de d'organisations nous Sénégal dafa war di organiser ndax booy xool li ñëpp gën a bëgg ci àdduna loolu la ñu am muy jàmm jàmm ma ngi fi dëkk bu neex la ñu yor on a un bon climat on a les hôtels qu'il faut et on a aujourd'hui li ñu manqué rek mooy infrastructure sportive lu nga xam ni ndax bu nee sport euh, infrastructure sportive du rek am stade donc bu ñu organiser il faut que équipe yi tamit di am fa la ñuy entraîner c'est important des des camps d'entraînement le championnat bi on organiser aussi équipe